وصلى اللهم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم ناصر الهادي وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذه المحضر ولتعتفي بنزلة تأتي لنا بزفر رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أه sen darse be leegi ci yobbalu gammu ñu ngi woon ak yéen ci aboubacry ne siddiq yaakaar naa tey mooy numéro deux bi ñu ngi woon ak yéen fi nga xamee ne aboubacry ne siddiq radiallahu anhu ñëw na ci xilaafa gi gannaaw bi nga xamee ne nekk na ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te wax naa la démb ne Abubakar ni Siddiq bañ ko woowee ci lislaam rek moom xaarul wuute na lool ak Seydina Omar <laughs> radiyallahu anhu donte jàmbaar la moom bokkoon na ci ñi nga xam ne ñu dëgëroon lañu moom ak Omar ibnu As ba Yonent bi sallallahu alayhi wa daan ñaan di wax ne kenn ci ñaari omar yi daal maa ngi ñaan yàlla mu dugg ci lislaam kenn ci ñaari omar yi nettalikat yi nettali nañ ne bi ñaan bi ñëwee pour dal ci ñoom dafa fekk omar ibnu as mu ngi dëpp omar ibnu xataab mu ngi jaaxaan yaa ngi dégg ñaan gi ñëw dal ci omar ibnu xataab parce que omar ibnu xataab mu ngi jaaxaan moo tax ñu tere jullit bi dëpp da wax ji ñu koy tere jullit buy tëdd mu bañ a dëpp Omar ibnul Xattaab radiyallahu anhu wax naa la ku dëgëroon la te jàmbaar la woon ku am fit la radiyallahu anhu ku am fit te naa Omar fit gi mu am dëgg-dëgg fit bu kowe la ba muy nekk avant moo nekk ci lislaam ak ba mu nekkee ci lislaam yëpp nag xam nga ci ci ci arab yi ñoom boo gisaan buñ daan am ay doom bu fekkee borom Dakar la nekk ñu yóbbu ko ba Fuuta wala yóbbu ko ba ca àll ba Saalum pour boromam nekk góor waaw parce que nee nañ góor yi juddoo ci teeru gi dañuy doon ay góor yu nooy ay góor yu nooy lañuy ñuy doon waaw pour boroom nekk góor parce que tappet maanaam ragal du mbiru góor du mbiru nit sax ci gàttal waaw nit du ragal nit warul ragal waaw kenn la war a ragal muy Mawlaana subhaanahu wa kese la war a ragal mais lu yàlla bind ni moom waru ko ragal yaa ngi dégg mais nag arab yi ñoom seen dégg-dégg moo doon il faut ñu yóbbu ci àll bi xiif loola mar loola ngay ànd ak say morom ngay tooñ ñu lay dóor ngay fayu ndax nga nekk góor xaw a dëgër tuuti dégg nga Seydina nag ci jàmbaar yooyu la bokkoon naka noonu tamit Seydina Ali ci jàmbaar yooyu la bokkoon Seydina Ali jaaseem bi ñaari ñaari làmmiñ la amoon diis bi nga xam ne moom rek moo ko attanoon Seydina Ali su la su la doon goree euh, euh, euh, bu la doon goru ci ci ci ci maanaam bu la xaajee day tàggale sa yaram fekkee fii la la dóor dooleem poids may na ko daf lay daggate tànk yi demee ne bopp bi demee ne su fekkee da laa til nag da laa til xar la bu la xaree day day day day day séparé woo ndax am dooleem ndax am kattanam waaye ak njàmbaarteem ak fitam radiyallahu anhu Seydina Omar moomu xëyu la ci lislaam comme ni ko Abubakrin defee comme ni ko Seydina Ali defee moom xaw na dëgër tuuti xaw na dëgër xaw na xaw na dëgëranteeg yonent bi sallallahu alayhi wa waaye gis nga bu yonent bi ñaanee loolu ba liimaan tàbbi ci xol bi dafa naan benn bés ba màndi ba am rek bi ko màndite bi bàyyee rek mu laajte lan moo xew ñu ne ko fii daal diine bu bees a fi xew boo xamee ne Muhammad ma ko fi ànd mu ne su ma gisee Muhammad fi muy woote diine boobu danaa tàggali boppam ak ak ak ak ak baatam am ku ko ne xay yow sa jigéen Fatimatu mu ngi ci biir diine kooku dugg na ci diine bu bees boobu moo jëkkëram rek mu départ mu départ ne loolu moom moom du ko dégg ci noppam daw rek wutali wutali rakk bu jigéen bi ba ñëwee taxaw ci bunt bi avant moo dugg dégg gaa yi di jàng suratu Taaha mu déglu wax ji déglu wax ji affaire yi commence xam nga l'islam dafa graw tur yàlla moo graw dafa mel yow mi romb rek dégg baati laa ilaa illaa souvent ni muy def ci sa biir xol mu ñëw rek fëgg ba mu fëggee ni ko si naaw ma dafa ñàngoon góor di ko gis di taxaw góor gis ko taxaw déedéet ña nga xam ne ñoo nekkoon ci biir néeg ba doon jàngale di jàng alxuraan bañ bañ yëgee ne Seydina Omar dañoo daw jàll ci wanag ba ca gànnaaw dem laqatu ji waaye nit ak rakkam surtout bu jigéen moom moo rakk bu jigéen ni Fatimatu moo résisté woon ne ko doo fi dugg mu ne ko dinaa dugg xëccanteeg moom ba bamax ko kooku daanoo deretam tuuru deretu mbokk dugg ko mu ne ko man niwuma woon pour force la pour leneen damaa bëgg xam yow ci lan nga nekk mu ne ko ñun dañoo nekk ci diine bu bees mu ne ko léegi damaa bëgg a liir seen téere bi mu ne ko déedéet téere bi doo ko liir doo ko laal parce que yow sobe nga doo ko laal parce que yow sobe nga mu ne léegi pour ma laal ko naka laay def mu ne ko da ngay jàpp Fatima lu teg ko njàpp mu jàpp ba pare mu ñëw jox ko jox mu liir ko ba mu ko liir la wax maa lan moo gën neex wax ji parce que wax ji jub gi mu jub ak rafet gi mu rafet ak neex gi mu neex xam na ne lii nit nit nit nit maanaam ko xam nga nit bu ràbbee dara boo ko waxee boo ko xoolee ni mun na nekk sa capacité mën na toll nga mën ko mais moom dafa jàng affaire bi amul lu ci ndax jub gi mu mu ne maa ahla haazal kalaam léegi nag ñu nekkoon ci walla fee bañ déggee mu ne maa ahla haazal kalaam rek ñu ne ko walla rek daaw daaw dugg si nag ñu dajeeg moom si biir néeg si biir néeg bi nag ne ko Seydina ci lii lañ leen di woo lii dëgg lii li wér la mu ne rakk ji damaa bëgg nga tegtal ma fan la yonent Yàlla Muhammad nekk wax ma fan la Muhammad nekk rakk ji ne ko maa ngi lay maa ngi lay lentloo su ma la diggalee fii nantu nekk soo fa demee nanga fa yóbbu jàmm gis nga boo defee ba yóbbu fa leneen lu du hut jàmm la wàccoon ci aab ak samut dana wàcc ci yow maanaam yàlla dana la xalak mu ne ko déedéet mën ko damaa bëgg a xam rek fan la nekk mu ne ko mu ngi daaru arxam daaru abi arxam muy mu waa daaru abi arxam foofu lañ nekk booba saaba yëpp képp ku dugg ci lislaam rek foofu koy dem mo nekkoon seen zawiya ci saxataa bi mën nañ ko tuddee zawiya ñu fa lañ daan daje di julli di jàng diine yonente di leen jàngal alquran di leen jàngal diine ñu nekk fa mu ne ko demal daaru abi arqam yonente la muhammad Sallallahu sallam Wasallam ngi foofu ak sahaaba yi waaye omar ma ngi lay lentuloo bés boo fa demee yóbbu woo fa jàmm wallahi li wàccoon ci aad ak samud dana wàcc ci yow rek omar départ omar <laughs> dafa dafa dafa dafa dafa dëgëroon buy dox danaan timpang timpang ndax dox bu dox xam nga balaa nga l'islam moo lay niteloo l'islam moo lay niteloo moo lay yar ba yar la may ngay doxee Omar bu daan dox day demee gauche di demee droite timpang timpang la daan def tànk dox yu dëgër nag foo toll na di nga xam ne Omar mooy dox bañ dëggee dox yi rek saaba yi ñoo ci yonent bi sallallahu alayhi ne ko kii di dox nii dafa mel ni Omar mu ñëw rek fëgg kung kung kung kung ñëw kooka la mu ne man la Omar ah saxaaba yi na tey moom jàmm fi xew fii moom tey Omar fii ja parce que ñëpp xam nañ ko man dafa tribu loon ñëpp xam nañ ko koñ bi yëpp xam nañ ko réew mi yëpp xam nañ ko dëkk bi yëpp xam nañ ko fu mu dem moom la ko fa tax a def la ko fa tax a dem daf koy def radiyallahu anhu ba mu ñëwee si yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci dalam ne saxaaba yi toog leen ngeen dal ngeen bàyyi maa ko Omar Omar su fekkee ne jàmm ko fi indi dana am jàmm ju mat sëkk waaye su fekkee ne dana ko fi andi danaa ko mu dem safara xeexlawu ma kenn jàppalawu ma kenn mais bàyyi leen ma ko ma saxaaba yi ñenn ñi ñu seen biir xaatir seen biir xel ñu naan ah yéen teg Omar lu ma wóorut sallallahu alayhi wa sallam waaye kenn du moom kenn du moom biñ na Omar aksil bi Omar aksil dugg ak njàmbaarteem taxaw yonent bi loxoom la jël dóor ko ci dënn yonent dënn Seydina Omar ne ko moo Omar mënoo gëm na man ab yonentu la Omar noyyi ne ko maa ngi koy bëgg a gëm de sama dënn bii góor masul cee teg loxo te ba nga ci tegee loxo li ma li ma yëg masuma kaa yëg ne ko ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah Seydina Omar keroog la dugg ci lislaam éeri julli jot ñoom bu ñu daan nodd dañuy jël kook def ci seen gémmiñ ñi di nodd ne Bilaal noddal mu jël kook def ci kii pour baat bi bañ a jóg ci kaw gaa yi jël kook na ñu ngi nodd pour wax ci suufee ma déet man du ma dugg ci lu lëndëm du ma dugg itam ci ay caaxaan du ma dugg ci lu ma wóorul Muhammad damaa bëgg nga wax ma lu leer lii ngay woote dëgg la mu ne waaw dëgg la mu ne ko li ngay woote ni dëgg la mu ne ko dëgg la mu ne yàllaa la yónni mu ne yàlla yàllaa ma yónni li ngay wax ni yàllaa la ko wax mu ne yàllaa ma ko wax mu ne ko waxuma ñuy nodd di jël ay ay ay koog di teg ci ay gémmiñ waaye ñun dañuy déparé fii dem julli ji si si Kaaba fii la ñuy déparé julli ji si Kaaba gi laa wax waxuma la julli fii de wala ñuy nodd ci suuf de fii la jaar keroog la lislaam feeñ ñu def ñaari sàppe benn sàppe bi Hamza moo ko jiite beneen xam eh, sàppe bi Seydina Omar moo ko jiite yonent bi sallallahu alayhi nekk ci digg bi ñu escorté ko dem dem dem Kaaba ga moo tax ñu tuddee ko Alfaaroox Seydina Omar radiyallahu anhu loolu tax ñu tuddee ko Alfaaroox ba mu ñëwee rek ci la teqale diggante dëgg ak léegi nag waa Makka nañ ne fu mu toll nii nag mbir mi nag mu ngi noonu virus bi mu ngi commencé nag évoluer mais ci ngëmu Seydina Omar radiyallahu anhu moom yemul rek ci dugg ci lislaam noonu simplement ba mu ci duggee dugg na ci semaine ñaari semaine sentirul boppam mu ñëw si yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko man daal des naa sentir sama bopp ci lislaam mu ne ko lu tax mu ah, man damaa gis fii ku fi dugg ci lislaam yéeféere dana la dóor danañ la saaga danañ la xas danañ la wax lu te man maa ngi nii ma duggee ci lislaam ba léegi kenn waxuma dara kenn saagawuma kenn xasuma kenn dóoruma man wax dëgg yàlla est-ce que man sama lislaam bi yàlla nangu na ko yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko pour wax la ne jàmbaar la nëbbuwul tey da gis ne ku nekk si dara di ko nëbb te li nga nekk dëgg la après nga di ko nëbb mais moom demul defeewul noonu yonent bi ne ko hankay ah sa lislaam aka ko yàlla nangu waaye sa baay Abu Lahab moo la garanti mu ne man yéeféer garanti bi man ma nekk julli di ma garanti xalaatuma ko noonu la solee ay dàllam rek dem fekk Abu Lahab fi nekk ba mu accès koo saaga ba mu agsee rek da koo saaga ndey saaga bu bon a bon ci arab la ko saaga ne ko yow dégg naa yaa ma garanti mu ne ko maa la garanti bu nekkoon ak man yéeféeri def la nangam mu ne nañ ñëw ma def leen nangam man yow amoo capacité garanti ma man yàlla ak yonent bi rek moo ma doy garanti mu ne ko am amoo jom sa bor bi nga leboon fii man maa la ko feyal mu ne ko soxla wu ma ñu jàppante Abu ne rey leen ko Omar nee na ñu may dóor ma leen di dóor buñ ma mattee ma matti leen buñ ma gàjjee ma gàjji leen maa ñoom ba sama yaram tàng jër ma bàyyi leen fa ne waaw góor gars yi dugg ci lislaam ñu tàngal seen yaram man ma dugg ci lislaam sama yaram di sedd naa xalaatuma ko ñooñu seen gëm foofu la ak goon <laughs> waaye fii tey da ngay dugg di nëbbatu buñ la xoolee sax nga ne xii daa métti nga dellu si ginnaaw kooku mooy Seydina Omar radiyallahu moom noonu la duggee ci lislaam waaye gis nga mu wute lool ak Abubakar mi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee moom bañ ñëwee ci moom rek ba lislaam accès si moom rek moom amul sax dengi-dengi dafa gëm ci saasi moom nag wax nañ la nekk démb ne euh, bi yonent bi génnee àddina ci fukki fan ak ñaar ci weeri gàmmu bésu altine ci même jour bi ci la nekk xalifa bi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi yaa ngi dégg wax naa la ba mu nekkee xalifa xutba bi mu njëkk a def wax naa la ko démb ne dafa wax ne qad wulitu alaykum wa lastu bi xayrikum in ahsantu fattabiuni wa in asaatu fa qawimuni jiital nañ ma ci seen kanam waaye nekkuma ku leen gën déedéet dama leen jiite rek waaye gënuma leen su ma rafetalee na ma topp su ma yàqee nag na ngeen ma jubbanti wax naa la ba mu ko waxee la ko Seydina Omar tontu na ko boo jubalee alhamdulilah waaye boo yàqee man Seydina Omar maay génnee sama jaas jubbanti lim ci teg mooy alhamdulilah rabbil alamin bi nga xamee ne su ma juumee danaa am ku ma jubbanti Aboubacar moom wax naa la démb ne Abdoulaye la tudd Abdoulaye la tudd papaam osmaan la tudd waaye abi Quhaafata dañ koy dàkkantalee moo tax ñuy wax Abubakar ne Abdullah ibn abi Quhaafata abi Quhaafata Ousmane la tudd wax naa la araab yi du nangoo sàllalu baayu diw la ñuy la ñuy gën di utiliser waaye moom papaam osmaan la tudd dëgg-dëgg turu abi Quhaafata mooy Ousmane Ousmane moomu Amir ibnu Amru mooy woy juram ibnu kaabu ibnu saadu ibnu taymim ibnu murata ibnu kaabu ibnu luway gis nga yaa ngi gis ni mu duggante gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay maam kon moom mbokk la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ibnu xaalib ibnu fihri ibnu malik ibnu nadar huwa qurayshiyun moom abubakar siddiq ci banu qurayshata la bokk mooy xeet bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk waaye ibnu kinaanata ibnu xuzaymatu ibnu mudrikata ibnu ilyas ibnu mudar ibnu nizar ibnu maat ibnu adnan adnan yéen a koy dégg jamono ju nekk ñu di ko tudd parce que yonent bi foofu mooy cosaanam kon nga gis ne euh, seydna aboubacar ibn siddiq moog yonent bi benn famille benn famille ci banu xuraysata la bokk kon banu xuraysata itam jar na taxaw seetlu parce que ñi gën a riis ci àddina ci ñoom la bokk waaw que ñaar yi ñoo gën a riis ci àddina muy nunti yàlla Muhammad ak Abubakar na dem wax nañ leen ko wax nañ leen ne li yàlla bind ginnaaw yonent yi ak anbiya yi Abubakar moo ci gën kenn kowe kenn gënu koo kowe maqaama kon banu xuraysata xeet bu ris la moo tax mu ne nag yaltaqi maa nabi muhammad fi jaddi sadis muy murat ak eh, ibnu kaab foofu la daje ak yonent bi sallallahu alayhi xam nga ñun suñu sëriñ ci Sénégal ñoom ñëpp presque ñoo bokk benn maam uqbatu ibnu naafi mooy seen maam ñoom ñëpp koo ci topp silsilaam da nga koy da koy fekk ba ci uqbatu ibnu naafi dalee ko ci Cheikh Umarul Fuuti dalee ko ci maam Alaaji Maalik jëm ci Maba Jaxu mi ngeen di dégg li ci diine la woon gaa dañ koy fàtte dëgg la da doon xeex mais l'islam la doon xeexal moom moo tax euh, Muhammad mi papay Alaaji Abdoulaye jóge Jolof ñëw Saalum fekk ma Alaaji Abdoulaye mu ngi am ñaar fukki at ak benn Muhammad moomu jógee Jolof ñëw pour jàppale Baba Jaxu mu ñëw xeex ak euh, euh, euh, yaakaar naa Buur Siin la xam nga moom sombo la daanoo ak ba Jaxu sombo la daano xare bi mu daanoo sombo xare boobu moo moo papaay Maam Alaaji Abdoulaye ñëw na pour ànd ak moom dem ci xare bi mais ci biir loolu avant xare be jee commencé mu feebar moom moom Muhammad feebar papa El Hadj Abdoulaye feebar dikkal ko mu génn àddina maa El Hadj Abdoulaye bëggoon na dem ci xare bi mais ba Jaxu moo ko ne déedéet comme yow presque benn doom nga sa papa def la yaakaaroon def na ci yow diine ba pare wuur nga dem ci xare bi des fa toogal pour nga wuuf njaboot moo taxoon maa El Hadj Abdoulaye demul woon ci xare boobu noonu amoon ca somb yaa ngi dégg Maba jox dañ koy fàttee boole ci nit yi diine yi dañ ko ciy fàttee boole mais ni Cheikh Umarul Fuuti doon xeexee Maba Jaxu noonu la daan xeexee yaa ngi dégg li ñu wuute mooy moom dafa xeex ba daanu ci xare mais Cheikh Omar fuuti moom kooku kenn kenn kenn kenn kenn kenn kii ko yaa ngi dégg ma ba joxu moomu nag Maalaaji Malick Maalaaji Abdoulaye euh, Cheikh Omarul fuuti boo toppee bi ci waa Canaba yii boo toppee seeni silsila da nga leen di fekk ci Okbatu ibnu Naafi ñoom ñëpp foofu la ñuy daje te Okbatu ibnu Naafi soo ko tuddee rek tudd nga yoon ci Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa nga wax ji kon banu Quraysata moo fi tasaaroo rek ba tey moo fi nekk rek la woon démb moo nekkaat tey rek dañoo xonq fee weex fee ñëw ñuul fii noonu rek la demee waaye benn rek la moo tax lu baax ci saanu yàlla bi ci yàlla bi la moo tax yonent bi ne jël leen ci ñun mbaa ñu jël ci yéen parce que mboolem askan yi dafay jeex benn askan mooy des mooy sama askan bi te askanu yonent bi mooy askanu askanu dëgg bi moom la yàlla tànn dégg nga eh, Seydina Abubakar Siddiq foofu la daje ak ak yonent bi sallallahu alayhi moo tax mu ne abu abu quhaafata turam dëgg mooy osman ibnu amir ibnu amru ibnu kaabun ibnu saadu ibnu taymi ibnu murata a taymi yu al qurayshi léegi nag boo ñëwee ci yaayam da fekk moom mu ngi bokk ci mu ngi tudd ummul xayri waaye juróom wu jigéen umul xayri la tudd salma bintu saxrin bintu amir ibnu kaabin ibnu saadin gis nga ko kon moom digga wàllu ndey ak wàllu baay lépp dafa bokk ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dégg nga sallallahu alayhi wa sallam mu ne waqad nasha abubakrin radiyallahu anhu wa fi makkata wa kaana fi ru'asaa xuraysi radiyallahu anhu siddiq mu ngi màggee ci biir makka mu ngi juddoo itamit ci biir makka bokkoon na ci ñu gën tedd ci giiru xuraysi waaye tamit wa ashrafuha fil jahiliya bokkoon na tamit ba ci ba mu nekkee ci jahiliya sax maanaam ci li duxul lislaam bokkoon na ci ñi gën a màgg moom en dehors de lislaam sax ku tedd la en dehors de lislaam sax ku màgg la léegi nag loolu da nga ciy jàngee nit balaa moo xamale ko ci la ñuy xam ban façon nit la bu fekkee ñam nekkal am basira xale bu ndaw bi nga nekkal avant moo xam lan mooy lislaam foofu nga foofu ngay ràññee mooy asru mooy mooy jamono jaahiliya Seydina Abubakar Siddiq même ci jamono jaahiliya ku màgg la ku tedd la waaye muhibban yaa ngi dégg wala boog mu xayyan fihim ku ñu rusoon la Abubakar Siddiq si asru jaahiliya ku ñu ku ñu amoon kersa la ci moom moo tax moom ba mu duggee ci lislaam jaaxal na ñu bëri yaa ngi dégg parce que dayo gim amoon kersa giñ ko joxoon bokk na sax li li tax gars yi ŋàññuñ ko comme ni ñu ŋàññee yeneen saxaaba yi xasuñu ko comme ni ñu xasee yeneen saxaaba yi yaa ngi dégg ndax kersa gi nga xamante ne am nañ ko ci moom waaye ma fan lahum ku ñu maanaam ku amoon yàlla ci seen kanam ma euh, yi ñuy wax hmm, ci saxaaba yi dafa war ñun ñu màng ko ci ñoom yii qualité bokk na ci yi tax yonent bi sallallahu alayhi tànn ko teg ko ci wetam yaa dégg wa kaana ilayhim ashnaaqu fil jaahiliya wa ashnaaqum fi wa kaana iza hamala shay'an sadaqatuhu qurayshin wa amdu hamalatahu wa hamalata man qaama maahu wa ihtamala ha gayruhu gazaluhu wala musaddiqu mu ne nekkoon na koo xam ne ku ñu amoon cofeel la ci ñoom maanaam ñoom dañ ko bëggoon ba muy nekk ci jaahiliya waaye ba mu duggee sax ci diine même bu dee gëmuñu diine ji terewul moom dañ kaa bëgg moom en personne dañ kaa bëgg mu ne nekkoon na koo xam ne su duggee ci dara dañ koy déggal maanaam ñi gëm loolu si saasi ñàkk caaxaan gëm ñàkk caaxaan rek lañ bëgg a wax xam nga day nit bu bëree caaxaan su duggee si dara ñu naa kii lay caaxaan rek waaye am na ñoo xamante ne boo leen déggee dugg nañ ci dara même ci and àndul tam di nga mandu ndax di nga xamne ki ni di tiaxa dégg nga mu tax ñu ne bu duggon ci dara gaay yi dañ ko doon deggal banu Quraysh dañ ko doon deggal te dañuy wéyale lolu mu dugg dañuy and ak mom ci lolu waye ku dut moom ca duggé duñ la ko deg duñ la deggal comme niñ ko Siddiq yaay mo ne sharafa fi Quraysh fi jahiliya kana qad intaha ila asarati rahtin min asdati abtanin minhum ñu ne dañuy wax ne boo demee ci banu Quraysata fukk yoo xamante ne ñu tedd lañu yaa ngi dégg ci seen biir ak seen biti bokk na ci Abbas ku tedd la woon ibnu Abdul Muttalib min bani Haashimin wa Abu Sufyaan bun Harab moom itamit ku ñu respecté la woon Abu Sufyan xam ngeen ko way wayjur la woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi bokkoon ci banu umayata wa Ousmane ibnu talhata ibnu zamatu ibnu asad min bani asad kii itam ku ñu respecté la woon ci asru jahiliya wa abu bakrin min bani taymi wa xaalid ibnu walid xaalid ibnu walid da nga koy dégg moom mu joon sax nekk ci sahaaba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abubakar ibnu Taymi mii tamit ku ñu respecté la woon ci asru jahiliya min bani Maxzumin ak kan ak Omar ibnul Xataab mi ma la doon wax sànq moom ku ñu respecté la woon ci asru jahiliya ñii ma tudd ni ñu amoon fit lañu waaye ñu ñu màggaloon la ñu ñu joxoon cër lañu woon yaa ngi dégg Omar ibnul Xataab mu ngi bokkoon ci bani Adiyin ak kan ak Safwaan ibnu Umayyata yaa dégg ak Safwaan ibnu Umayyata Safwaan mii nag problème bi amoon diggante euh, na Ali ak ndey Aysatu Safwaan mii amoon na ci amoon na ci amoon na ci paar waaye tamit tuumaal bi ñu tuumaaloon yaa ngi dégg ndey Aysatu Safwaan mii amoon na ci paar sahaaba woon ci Yonent bi sallallahu yaa ngi dégg moom moo njëkk a fésal siiwal ne maa najat minhu maa najja minhu moo ko njëkk a wax dafa gis rek dara wóoru ko comme li accusation mu tëb wax ne ku góor ki mucc ci ku jigéen ki ku jigéen ki mucc ci ku góor ki loolu beneen bés dinañ ci wax mu indi woon problème ba suratu nuur wàcc ngir setal ndey aysatu radiyallahu anhu kon nga xam na itam lislaam comme ni ko Zeda Asi laajee woon démb bëri na bëri na ay ay ixtilaaf bëri na ay ay ay kenn comprendre waaye lépp nag yonent bi nee na ixtilaafu ummati rahmatun sama uuteeb xeet yërmande la waaye nag wax nañ tamit ne nañu maandu ci jote sahaaba yi ci seen biir bul masa taxaw ne Seydina Ali moo tooñ wala Seydina Abubakar moo tooñ wala nangam moo tooñ déedéet na nga ci maandu bul faral kenn nañ ci maandu dañuy dégg parce que ñoom ay nit ñu spécial lañ mu ne wa qad ishtahara abu bakrin fil jahiliya bi sifaatin udda mu ne siiw na lool ci abu bakrin siddiq ci jamono bi muy nekk ci asru jahiliya mooy balaa moo dugg ci lislaam ay jikko yu rafet yoo xamee ne baax na jullit bi yor ko minha al ilmu bil ansab ku amoon xam-xamu askan la maanaam histoire niñ koy waxee ci tubaab ah mooy ñi nga xam ne ñoom ñoom ñoom histoire daal dañ ko dañ ko tey boo leen laajoon li xewoon Sénégal depuis mille neuf cent huit dañ la koy wax historien très bien Seydina Abubakar historien la woon yaa ngi dégg ku amoon xam-xamu ansab la yaa ngi dégg ba gars yi dañ daan dañ ko daan ràng nan ko xeet bii ñoom naka lañ bokkee mu expliqué lan moo nekkoon suñu jaar-jaar démb mu expliqué te loolu dafa baax malheureusement nag Sénégal dañ ñu ko bëgg a ba ñu ko bëgg a sàgganee parce que loolu yokku na li tax suñu valeurs yi commencé ñoo rëcc moo tax tam ñu bëri nekkatuñu ay jàmbaar ndax bu ñu lay expliqué say maam fi ñu jaar loolu mën na am lu mu soppi ci yow malheureusement tubaab bi ñoo ne installé su ñu ay ay ay ay modernisation xawma ay nangam ak nangam loolu loolu te waxuma historien yi léegi moom seen seen maanaam seen kii bopp la ñuy wax mais suñu ñun laa wax ñun ñun ñun ñun ñun dañoo war a waxal ci lislaam jàmbaar yi dañoo war a wax tamit suñu maam yi nekkoon ci lislaam lañ ci daj comme ni ma tuddee léegi ma ba jaxu tuddee ko Cheikh Umarul fuuti tuddee ko Cheikh Ahmad Bamba nga xam ne jël nañ seen temps seen alal seen xam-xam seen bakkan jox ko lislaam xam nga ku ñu jëlee fii jugal ci bateau yóbbu ba ci ba ba Gabon yow bu fekkee sëtam nga ñu wax la nga sa maam joxe na bakkanam ñu bukkee ba Gabon kan moo ko sauvé gannaaw njàmbaarteem borom bi tabaraka wa moo taxoon boo dee tam da nga war am jot Cheikh Umarul Fuuti buñ la waxee ne xare na xare xare xare xare xare xare xare tubaab bi amul lu mu defut manut ci moom salaamaaleykum tey boo dee sëtam buñ la ko waxee tey ah yow loolu war na am lu mu def ci yow ma ba Jaxu naka noonu yaa ngi dégg buñ la ko waxee yow nga nga kii war na am lu mu def ci yow Seydina Abubakar Siddiq nag xam-xam boobu la amoon doon ko nettali mu tax arab yi ñu fonk loolu ñoom ñoom buñ daan buñ daan dem ci xare sax dañ daan dañ daan dañ daan jaayante dañuy ñëw rek samp xeej bi ne man la diw doomi diw duma ma daw du ma reculer dem rek ba jeex yaa ngi dégg abu abu abu jahlin sa xare badar noonu la def ba xare bi bëggee fomm ñu ne xare bi fomm na yonent bi dàppul njëg yi dugg na fi gën na fi mun a mbokk taggu naa sama jabar taggu naa samay doom taggu naa samay jaam taggu naa samay xarit man damay xeexi damay dem danaa dem taggalay Muhammad boppam ak tànkam boppam ak baatam yaa ngi dégg dinaa taal sama safara si rey samay gàtt lekk naan sama sàngara tey kenn mënu maa teree feetu du ma dellu ginnaaw mukk jóg naa ba pare par rapport ak tey da ngay jóg i dem doxi lu baax sax ñu ne la faw mu nag nga nga nga nga nga kii ah waaye bàyyi bu koy nettee dafay wax ne ndekete yoo du du taal safaraam maanaam si safaraam lañ koy sànni sànni safara mu ne ndekete yoo duñ ko tagg waaye dañ koy jooyoo bàyyi bu koy wax loolu lay wax ndekete yoo duñ ko tagg waaye dañ koy jooyoo waaye ak loolu yëpp wane na delluwul ginnaaw delluwul ginnaaw moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su sahaaba yi daan dem xare mu daan leen pik lim leen lim leen daan pikiré mooy ku woon yéeféer ginnaaw boo yegg si dañ lay rey xare ba dar gars yi nekkoon nañ ay junni sahaaba yi amuñu woon nekkuñu lu dul ñetti téeméer ak fukk ak ñett jullit ñi nekkuñu lu dul ñetti téeméer ak fukk ak ñett waaye reculé wuñ benn yoon dañoo avancé si kaw gaa yi dox ci seen kaw yaa dégg yooyu lañ war di expliquer nit ñi pour ñu xam ne ab jullit du ragal yaa ngi dégg mu ne faqad kaana aaliman min al ulama al ansaabi Abubakar ne Siddiq bokkoon na ci historiens yi gënoon rëy ci jamaanoom waa xabaarul arab yi kenn gënu koo xam xabaaru arab yi démb culture arab yi démb kenn gënu ko ko woon xam من وله في ذلك باء طويل جعله استاذ كثير آه، آه، من من الناس بينا ناي يعني دغ من جوخول نانكو سي مرتبه بو كوي كوي موم سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه واي تامي فورمي نا اي ازات يو يو مك كو سي ملني عقيل ابن ابي طالب موكو فورمي ناي يعني دغ وجبير ابن مطعم moom moo ko ci formé waxee xayrihima ak ñeneen sax ñoom ñëpp seydna abubakrin siddiq moo leen jàngal mu ne wa kaanat lahu sifatun hababtahu ilal qulubil arabi mu ne amoon na jikk yoo xam ne arab yi dañ koo bëggoon yaa dégg arab yi dañ koo bëggoon maanaam yoroon na qualité yoo xam ne arab yi dañ ko bëggoon yaa ngi dégg avant muy dugg ci lislaam te gis nga bam mu duggee ci lislaam itam jikko yooyu la andi ba tax na saxaaba yi dañoo amoon ci moom kersa Seydina Abubakrin cër biñ bi bi bi saxaaba yi joxoon yonent bi cër boobu lañ joxoon Abubakrin na Siddiq amul benn conflit bu ma bu am ci xilaafaam maanaam si diggante saxaaba yi amul benn wérante bu ci am maanaam benn jàppante masut ci am parce que kersa li nga xamante ne amoon nañ ko ci moom démb moom la ñu wéyale ba tey waxam kenn du ko tegg yaa ngi dégg parce que ku baaxoon la ku lewetoon la yaa ngi dégg gis nga bañ jàppee ñañ jàpp ca xare Badar bañ ko laajee moom Abubakar xam nga lan la wax dafa wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi ñii say suñuy mbokk lañ ñii suñuy mbokk lañ boo leen reyee say mbokk nga rey man daal li ma lay conseillé mooy ñoom suñuy mbokk lañu jàmbur gi bu ñuy joxe fukk ñoom nañu joxe téeméer ñu bañ leen a rey bañ laajee Seydina Omar xam nga lan la wax sëñ dafa wax ne yow yonent bi ñii du ñu dara du ñu nit tus du ñu tekkiwuñu dara dooñu ñu dara démb ak ndax ñii ñooñu waroon a dimbale dimbale wuñ ñooñu waroon a jàppale jàppale wuñ ñooñu waroon a soutenir soutenir wuñ ñoom ñooñu toroxal ñooñu génne tey seen seen seen seen seen mébét bu sotti woon ñun tey duñ fi nekk di wax xam nga lan mooy solution man sama xalaat laa wax képp kuy njaboot képp ku bokk ak Seydina Ali jox ko Seydina Ali mu rendi ko ku bokk ak man jox ma ko ma rendi ko ku bokk ak Seydina Ousmane jox Seydina Ousmane mu rendi ko Aboubacar na comme moom xol bi dafa oyof mun a rendi kenn na ma jox ay mbokkam rey leen <laughs> dégg nga dégg wax ji pour xam man la Seydina Aboubacar noonu la meloon yaa ngi dégg euh, bu man dafa dafa maanaam li ko li woon jooy sax mooy waxoo maanaam laaloo ko boo ko laa tuuti rek day jooy maanaam boo ko laalee ci ngëm-ngëm dafa xol bi dafa oyofoon radiyallahu anhu mu wute woon loolu nag Seydina Abubakar te adduna tamit noonu la mbooloo moo gis dana am ñu dëgër dana am ñu lewet moom ci ñu lewet ñu la bokkoon radiyallahu anhu yaa ngi dégg moo tax mu ne jikko yu rafet la yoroon jikko yoo xam ne arab yi dañ ko bëggoon yaa ngi dégg mu ne annahu lam yakun yu ayibul ansaaba gis nga Abubakar na Siddiq daawul ŋaññi benn aska Abubakar Siddiq daawul xas benn askan mu wuute woon lool na ak suñu jamono ji tey suñu jamono ji tey séeréer bi day wax ne moo gën tukulóor bi tukulóor bi ne moo gën joolaa bi ah xastante bi nekk fi kii géwél la kii tëgg la ki jaam la kii nangam la kii nangam aw Abubakar Siddiq loolu mas a génn ci làmmeñ wala mu nekk yu ayibul ansaab daawul ayibal daawul sikkal benn xeet radiyallahu anhu kon loolu ñun nañ ci jàngee la may faral di wax souvent ma ne doo dem ci armeel yi ba fekk fa benn benn benn luñ koy waxee benn bàmmeel boo xam ne dañuy wax ne fii bàmmeelu tëgg wala fii bàmmeelu géwél la nga lan moo am armeelu jullit ñi ak armeelu yéefir jeex loolu rek moo am mais kii géwél la kii nangam la demal Makka demal taxawaayu Arafa ndax di nga xamee géwél ak jaam ak tëgg ak ak séeréer ak leneen doo xamee ñoom ñëpp ñooy bokk le même lu muy tekki wahdatul wujud yàlla kenn la du ñaar yàllay tëgg bi mooy yàllay géer gi yàllay buur bi mooy yàllay baadoolo bi te baadoolo amul baadoolo mooy ku gëmul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baadoolo mooy ku gëmul yonent ndax li la yonentu jagleel soo ko mënee weddi yow baadoolo nga dégg nga wax tëgg amut métier la rek géwél amut gën a yeewu la rek loolu rek la ah yow géwél mooy am sato bàyyi ko fa ñëw yow néegu ñax nga yor mu ñëw cinq yi nga war a joxe dépense mu ñëw tàgg la nga yëkkati jox ko mu ne dolli ci la loolu du muusaange waaw yow soudeur bi nekk fii ci lan lay liggéey ci weñ euh, ñii defar bijoutier ñu la ñu ñi defar or yi ay lan lañ leen di tuddee bijoutier ah bijoutier moom tëgg tëgg rek la war a doon ñeneen ñu ngi doon ay bijoutier métier la waaw léegi soudeur soudeur soudeur métallique bii nii nga ne yow bi léegi kala di dóor ay weñ di defar nga ne ko yow tëgg xoolal tubaab bi nim nim ñu changé xool ko rek ah bu bu tëgg bi def ay keng-keng bu nekkee tëgg waxal soudeur métallique bi ne ko yow yi tëgg nga luy différence bi amul différence ñun ñoo war a yeewu lawbe bi lu muy def yett et pourtant la muy yet yaa ngi koy soxla suñu kuur yi ñuy rukki rukki di di togg suñu añ yeeg suñu kii yi kuur yeeg génn yi ñoom ñoo koy defar loolu du ndimbal ci doomu aadama ak gaal yi gaali looco yi ak joow yi ak semmeñ yi ci li jiitu banti semmiñ ah eh, Nuux waaw Daawda moo nekkoon tëgg bi ah léegi nag léegi nag kon ana génlante bi génlante amut inna akramakum indallahi atqaakum ki gën ci mooy ki gën a ragal yàlla ko ko gën ci ku dul kooku te kooka kenn xamu ko yàlla rek moo ko xam dégg nga moom la waa ji di wax ne la nit di gënee nit ni moom buy dem marché du ko yóbbaale buy dem ci toilette ba yaa dégg du ko summi waaye buy dem marché da ko yóbbaale maanaam du takkale ko moom la bëgg a wax booy dem ci douche bi di nga summi lépp teg mais la ngay rawee sa waay loolu doo ko summi loolu may ragal yàlla dégg nga seen naaw ba Siddiq nag wala yaskuru masaliba bi xilaafi xëyri du mas a yëkkati luy indi jiyoo digganteem ak nit maanaam du sosal kenn du càng gi du te borom alal la bu ko neexoon xool ñenn ñu xas leen wala mu indi conflit ci biir famille bi parce que yàlla may na ko kàddu googu waaye nekkee woon noonu mu ne waqad kaana abu bakrin ansaba quraysin li quraysin وأعلم قريش بها وبما فيها من خير وشر يعني دغ من أبو بكر الصديق رضي الله عنه بنو قريش تلا بكون وياك قمون بنو قريش لا قمون إتمن لب لب أختبر قريش أك لب لب أختبر قريش ويتخلون مدكو مدكو وخير mu ne itam Abubakar ne Siddiq taajiran commerçant la woon commerce métier bu yàgg la commerce yonent bi sallallahu commerce ak càmm la def ñaari métier la mas a def commerce ak càmm sàmm na ba mu nekkee ci Halimatu Saadiya yaa ngi dégg waaye tamit commerce na ba mu nekkee ak papaam euh, Abu Talib ci commerce aussi la la gisante ak xadijati bunti xuwalidin ba seen sëy taxaw loolu tamit xam naa mës nañ cee wax waaye daal Seydina Abubakrin commerçant la woon xaala ibnu kasirin bi maanaa ku bëri woon alal ibnu kasir bu ko arab waxee mooy ku bëri woon alal la mu ne wa rajulan taajiran za xuluqin wa maarufin Seydina Abubakrin commerçant la won waye borom jikko bu rafet rafet la won waye tam kuñu ragne la won wa kana رجال قومه يأتونه ويؤلفونه لغير واحد من الأمر لعلمه وتجارته amri مجالسته رضي الله عنه من أبو بكر الصديق يعني mu ne abubakar ne siddiq دان ngi dégg ñi mu di ko seet si ngir fasaxanteeg moom kóllëre ndax xam-xamam ci wàllu njaay ak njaayam waaye tamit ak taarab jotaayam bi maanaam saa yoo toogeeg Seydina Abubakar ne Siddiq loo gaaw a gaaw a jóg dana la fàttali mbaax loolu tamit di jar a bàyyi xel la te da ngay bàyyi sa yitte dem seesi nit au lieu que mu fàttali la mbaax sosal sos mbaax ci yow waaye daf lay duggal ci yeneen i débat yi lay jural bakkaar bari na nga dem seeti nit booy ak su ma ana diw nga ne ko ah diw mu ngi fa nga complexe nag ba mel na ñi ma xam acca débat bi takkar naa si ngeen nekk si diw moom rek di lekk yàpp gi di ko lekk rek di ko lekk balaa ngeen di jóg seen biir yi fees del ayuhibbu ahadukum an yaakula lahma ak laxama aqihi mayitan fa karihtumuhu ndax yéen sibu leen tiim seen yàpp morom di ko lekk xanaa sibu leen loolu ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam la nit di tiime yàpp morom di koy lekk mu ne xamula ne nit dana jàpp ni rendi ko fees ko daggete ko marine ko saaf ko teg mayonnaise ci kawam dóor ko mu daam ñu ne ko loolu nu mën a nekkee mu ne ah topp loolu mooy dëmm di topp nit ki rek nekk ci moom rek nekk ci moom rek Hmm? ndékk ci moom añ ci moom reer ci moom lu xaraama ngi noonu waaye Abubakar na Siddiq boo daan ñëw ci moom da lay fàttali sa borom fàttali la mbaax ba muy nekk ci lislaam ak balaa moo nekk ci lislaam mu ne wa euh, qad irtahala Abubakarin li tijaarati baynal buldaani hatta wasala busra min ardi mu ne Abubakarin Siddiq wër na def commerce ci ay dëkk yu fasante ko ba mu àgg ci benn dëkk bu ñuy tuddee Busra ci biir Saam mu ne jamono jooju raasa maalihi arbaina alfu eh, eh, dirhamin nekkoon na ñeen fukki junni ci dirham wa kaana yunfiqu maalihi bi saqaa'i wa karami wa urfi bihi fil jahiliya mu ne itam moom Seydina Abubakar Siddiq ku ñu xàmmee woon la ku ñu xamoon la ci tabe ci joxe alalam ku teddoon la ci e, ñaqam bi muy nekk sax ci ci jaahiliya maanaam ñaqam joxe ko du dara dimbali la ci alalam nekkul woon dara te booba sa nekkul nekk lislaam ñëwagul mu ne wa e, yurwi anna aba bakrin raa ru'yan indama kaana fi saam fa qasaha ala buhayra rahibi fa qaala min na anta nee na am na benn bés Abubakar ne Siddiq tëdd di nelaw gént benn gént ba mu ko géntee ba pare booba mu nga saam dafa dem nettalil gént gi benn waaye bu ñu doon tuddee Buhayra Rahib ba mu ko waxee Buhayra Rahib Buhayra Rahib ne ko yow fan nga dëkk mu ne ko man maa ngi dëkk Makka mu ne ko ah yow Makka nga dëkk mu ne ko waaw mu ne ko ci ban xeet mu ne ko Xuraysin mu ne ko fa ay sëy anta yow ngay def mu ko man damay jaay man commerçant la mu ne ko in sadaqa allahu ruyaaka fa innahu yabasa yaa ngi dégg fa innahu yabasa ñu baal ko fa innahu yabasa bani baniyun min qawmika takunu waziran fi hayatihi wa xalifatihi baada mawtihi itam bari na xam-xam de fa asarra abubakrin zalika fi nafsihi mu tax yàlla ak a yàlla gis ko nii rek mais dafa garaaw xoolal waa dafa ñëw abubakrin nettalil ko géntam mu laaj ko lim ko laaj yëpp fan nga dëkk mu ne ko màkka looy def mu ne ko commerçant la ci ban xeet nga bokk mun ne ko man ci banu Qurayshata laa bokk mu ne ko ah su fekkee ne sa gént gi dëgg la su fekkee dëgg la bu yàlla dëggalee sa gént gi yàlla dana yónni aw ndaw min qawmika min qawmika la ko wax min qawmika ci sa biir xeet te wax naa la ci début bi léegi ne la aw Abubakar mook Seydina Muhammad ñoo bokk banu Qurayshata mu ne ko min ka ci sa biir xeet yàlla dina fa yónni aw aw ndaw woo xam ne yow mii yaay nekk yaa ngi dégg conseiller am ci biir dundam waaye yaay nekk xalifaam gannaaw faatoom dafa mel ni ki waxoon ndey Xadijatu bintu Xuwaylid ki ko firiloon géntam gi mu ne gis nga benn waay fan yi lay passé ne Cheikh Tidiane radiyallahu anhu mbiram mi ay gént la dafa dof il est devenu fou la kon la xoola aw bakrin bi ko kii waxee gént gi bi ko kii firlee gént gi fa asarrahu bi nafsihi koo daf ko garde nëbb ko nangootu ko waxaat keneen Xadijatu bintu Xuwaylid dafa tëdd guddi di nelaw gént weer wi fàqee asamaan ñoo daanu ci diggante poojam mel ni luy séy ak moom mu xëy rek dem ci firikati gént bi expliquer ko gént gi kooku nekk su fekkee li nga wax dëgg la yónnentu mujjantelu jamaano yaay nekk soxnaam te si gént la kon kii bu waxee ne Cheikh Tidiane radiyallahu anhu mbiram mi mbiram gént la dafa def rek dafa def rek waaye gént yenentu nee na alxulmu qit'atun na an nubuwa gént ceer la ci nubuwa amul kenn ku yàlla di def dara lu may ne yenkiwal na la ko ci say nelaw ci say nelaw yenkiwal na la ko amul luy ñëw ci nit aussi nit ku nit ku nite nag laa wax nit nit laa wax de te lu may ne am na benn risaala bu ñëw ci yow lu ñu yónni ci yow soit mu ñëw ci gént lay gën di ñëw nga xam na lii mu ngi ñëw lan la nag mooy problème bu gisee ñu di ko firi ngay wut ku la ko firil c'est parce que lii ñëw xamuloo ko firikat yi gën ci nag bu dee fukk lañ juróom-ñeenti ay fenkat lañ <laughs> firikat yi gën ci bu dee fukk lañ juróom ay fenkat lañ ndax dina yonentu nee na nit su nekkee ku dëggu lu mu gën ci dëgg lay doon mais nit su nekkee fenkat lu mu gën dee fen lay doon léegi nag kii gën ci xam ndax fenkat la am déet da xam naa fekk la am déet da nga xam ndax gént la te gént dafa am janeer dafa am gis dafa am il faut nga xam ci ban marta wala tool ñii ba ñuy firi seen gént dañoo xam ki wax kan la waaye xamoo <laughs> eh, moo tax noonu la demee woon radiyallahu anhu ñu ne wax nañu Ababakarin ba muy nekk sax si asru jahiliya lam yashrib al xamra daawu naan sàngara waaw daaw naan sàngara te xam nga ñoom jamono yuñ tombee boo naanu sàngara bokkoo ci kom tey rek li xew tey boo jëlut simok bi yoo bokkoo fa ngay tux pour nga bokk ci ci ci bi ah gem bi la ñuy wax pour nga bokk ci moom nag daawut naan sàngara mu def pour xamale ne ku jikko yu rafet la yoroon balaa booba fa qad haramaha ala nafsihi qabla islam moom araamaloon na ko ci boppam balaa al islam kon moom bu ko lislaam teree sàngara du sonn parce que moom daawu naan sàngara masul ko naan ba muy nekk sax ci li duhu lislaam wa kaana min aafi nnaasi fil jaahiliya bokkoon na ci ñi gën a fegu ci ci asru jaahiliya fegu buñ la ko waxee mooy du naan sàngara du fen du njaalo du sàcc itam kii kon an kii xalaa kon moom dafa du jur nekk si lislaam ah te xoolal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa pour pourtant nii la meloon bañ tuddee ko ne kii daa bari solo moom li fi maamam yi doon def ak baayam yi moom nangu ko def moromam yi sax bu ñuy foofu du foofu bi maanaam bu morom yi dem soirée du dem soirée bu moromam yi nangam gis nga nit bu naree nekk kilifa doo ko gis mu ci caaxaan boo ko gisee ci caaxaan même bu nekkee kilifa kiliftaang bi dafay des ndax banditisme bi dafay nekk banditisme bi daf fay nekk donte kilifa la mais banditisme bi daf fay nekk yéen gis ngeen fii ci mim réew aw kilifa bu taxaw ne ba may naan sàngara sa daaw ma màndi banditisme bi dafa des ak ayo saawaay gis nga ko ah <laughs> gis nga ko banditisme bi mooy des donte kilifa la nag waaye banditisme bi dafay des moo taxoon waa ji bi mu waxee eh, sëñ Babacar si ne ko dañoo dégg ci hadis waa ji ne yonent bi nee na nabiyan nabiyan walaw kaana safiyan sëñ Babacar sonn di ko tontu di ko ne ah mu ne ko waaw mu ko déedéet nabiyan nabiyan walaw kaana nara bon <laughs> oh, mu ne ku ne jaar na ci ndaw donte yënantu la mu ne déedéet boo naree bon ngay jël hadis boobu bu bu ko ne nabiyan nabiyan walaw kaana sabiyan boo naree bon ngay wax loolu wala boog sabiyan sabiyan walaw kaana nabiyan dégg nga boo naree bon ngay jël hadis boobu mais boo naree baax wala Abubakar Siddiq te lii boobu lislaam ñëwul ngay juddoo ci diggante ndey ak baay yoo xam ne lislaam lañ dund ñu nga judd ci lislaam ñu noddu ci sa nopp nopp ndeyjoor li xam ci sa càmmoñ tuddee la tur bu màgg ngay naan sangara ne parce que jeune la ngay tux yamba parce que man jeune la ngay njaalo parce que man jeune la ngay sàcc parce que man jeune la foo ko teg te kii lii daganoon na ci moom te defu ko parce que même bu dul lislaam sax lii bakkan ko si waaw même bu la ko lislaam terewul woon yow waroo naan sangara imagine nga la naan sangara ba làng sa xammee woo sa jabar xammee woo sa doom xammee woo sa xammee yaay ah loolu loolu loolu bu dul lislaam sax da ko war a rus bu dul lislaam même budul islam nga gestu gis dom boh xamantene ya ko jur takko tàkkoo ndeyam loolu dafa ñaaw dafa ñaaw dafa ñaaw waxantuma laa nak gën nek ci même budul islam nga sah ñu japp la gor buku lolou bu ko diine nango sax sa ngorol ko naan bu ko diine nango sax sa ngorol ko naan waxantuma laa bi ko diine bañe tombe sa ngor bañ Abu Bakar siddiq radhiyallahu anhu daawul jëfee yoyu moo tax ma wax la fi nubuwa jeexee fa la wilaaya jeexee nubuwa mooy wilaaya wilaaya mooy nubuwa ñoom ñaar kenn mënu leen séparé Abubakar Siddiq pour mu jiite woon nit ñi gannaaw yonent bi il faut mu yor jikko yi il faut mu am orma bi ci ñim jiite te yonent bi orma bii la amoon ci ci umma bi sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhu ñu ne wax nañu ne sayyidatu aïsatu harrama abubakrin xamra على نفسه فلم يشربها في الجاهلية ولا في الإسلام وذلك مر آه، آه، برجل سكران يدع يده في العزرة ويدينها فيه من فيه فإذا وجد ريحها صرف عنه فقال بكر الصديق إن هذا لا يدري ما يصنع وهو يجد ريحها فهماها رضي الله عنه من أبو بكر الصديق Siddiq araamaloon na ci boppam sàngara yaa ngi duggagul ci l'islam Muna amna ben bis benn bés benn waay naan na sangara ba lang ñëw rek teg loxom ci kaw kaw Abubakar ne Siddiq commencé wax rek seen wax yi buy mandee ñoom Abubakar na xamewul sax lan mooy xeetu sangara moom xamu sax moom bu sangara xeeñ xamu wuti naa ñun nag ñun fii ñëpp xam ne xeetu sàngara <laughs> sàngara xeeñ ñëpp a xam na lii sàngara la waaw parce que li jëntiwu ko woon radiyallahu anhu yaa ngi dégg waa ji ba mu ñëwee di expliquer affaire sàngara ne ko man dama lay laaj ndax yow hal sarabtal xamra fil jahiliya fa qala auzu billah loolu la ko mu laay Abubakar yow lu tax xam ne wax xeetu sàngara xanaa yow daawoo naan sàngara bi nga nekkee asru jahiliya Abubakar na Siddiq ne ba auzu billahi mina shaytaani rajim yal na ma yàlla musal ci naan ci naan sàngara fa qiila walam qaala kuntu asuunu ardi wa hafaza muru'ati fa inna man sarabal xamra kaana mudayyi'an li ardihi noonu la ko tontu mu ne ko man dama nekkoon kuy sàmm sama der kuy sàmm sama der nit dafa war a nga góorgóorlu bu la kenn du tuumaal waaye buñ la ci gis waaw mu ne man dama doon sàmm sama der ba du ma naan waaye dama doon sàmm sama njaboot sama njaboot nettali nit bu mu considéré boppam kese parce que du moom kese du moom kese boo duggee sa néeg ne man kese la da wax rek du yow kese du yow kese waaye bàyyil xel ni nga war a ñi nga war a nekkal ëllëg ñii sa njaboot naan leen seen baay fii la nekkoon di sàcc tëj nañ ko kaso juróom-ñaari yoon seen baay baar bi fii lañ ko reyee daan naan sàngara ben jam ko fi paaka mu faatu ah, loolu seen naa Aboubakirin nee na dama doon sàmm sama bopp ci loolu mu ne fa inna man sharaba al xamra kaana mudayyan li ardihi képp kuy naan sàngara dëgg-dëgg ku suufel sa sa ku suufee sa der nga xoolal kuy naan sàngara bu fi xale yi ñooy for ay xeer di ko ko sànni naan sàngara ak xaj bu say ñoo yem buñ fi génni gars yi ay xeer la ñuy for di ko sànni dégg nga wax ji eh, waaye nag comme ñoom lu jiitu loolu seen seen mbokk yi dañ ko daan naan dañ ko daan naan ndax bul fàtte Abubakar eh, Ndey Xadijatu sëñam ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baayam nanguwul woon baayam nanguwul woon baayu aw baayu xadijatu nanguwul woon parce que nee na yonent bi Muhammad dafa dafa dafa maanaam dafa génn xeet du ñëw ci seen caaxaan yi bu ñu tëggee seen bu ñu defee seen ndëpp yi seen ndëpp yi bu ñu ko defee yonent bi daawul ñëw bu ñu tëggee seen ngel yi daawul ñëw bu organiser nawetaan du ñëw bu ñu tëggee làmb du ñëw bu ñu organiser waal yi du ñëw moom dafa bari affaire mu kon nag ku mel noonu du ko may doomam Xadijatu bintu Xuwaylid bëgg nañu may ko yonent bi sallallahu alayhi mu organiser fête rey ay gàttam sàngara dagan na mu indi sàngara paa bi daa bëggoon sàngara mu lekk yàpp ba bëgg a dee mu jox ko sangara paa bi naana naana naana naana naan benn waali mu ñëw ne ko papa dama bëgg nga may ma Muhammad